lil Mustapha kulliyati kulla sana mathan salatan wa hababil hasana ya rabbana habli bi haqqil kawsari yumnal hayati wa ujurika shiri assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu rajawna ila naar falli jannati kawsara sharifun karimun inda touba wa kawsara barka cheikh modou moustapha fall suñam daka asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal bokki njaarim bokki àddina sépp seenub taalibe di seen mbokkum taalibe ci ñi ci des Moustapha Seck Baye Fall mu si Amdi Xadi Fall moo leen di nuyu fii ci njaarim ci kër gi nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko sancan tudde ko Madinatu Munawara fi laa leen di nuyoo ndax bi mu ñëwee njaareem dafee sañ ñaari kër kër gu ci nekk nag ab karce la jël mbooloo ma mu àndalam kër gu ci nekk mu dëkkal mbooloo ma ca ginnaaw génn kër gi mu tudd ko màkkatal mu karam mooy kër gii ci sow fi nu nekk moom la ñu wax màkka loy loy mag ñi daan ko kër seex fii nu taxaw nag moom la sanc tudd ko madinatu munawara ga ca ardu ijaas fu fa rasulullaahi alayhi salaatu wa salaam tëdd bi mu sancee madinatu munawara fi la jëkk dëkk moom maam si Ibrahima Fall ndax ba mu bàyyi koo kees fii la dal muy madinatu munawara ba bi mu fi defee ñaari at lim soldaar sama joxoon sëriñ bi bi tubaab bi ñaanee sëriñ bi ndimmal ci deuxième attaque gu deuxième guerre te sëñ bi joxe ñetti téeméer soldaar ak fukk ñett téeméer ba ak juróom fukk fii la ko maam si Ibrahima Fall joxe ci kër gii di Madinatu Munawara fekk doomi maam si Ibrahima Fall di ñu wax Serigne Fallou Fall jiitu woon na ca première attaque ba ci 1914 ba ñu demee ba 1918 di deuxième attaque fekk nag ñibbisi na fii booba Serigne Fallou Fall gradé la sous-officier la nekk sergent chef ci armée communauté. waaye moo ànd ak troupe ba nga xam ni ñoo doon recruter soldat si Maam Cheikh Ibrahima Fall doon joxe ba mu joxe mu ba mu ñëwee mu joxe téeméer soldat ak juróom fukk loolu nag maa ko amee ci mbindum sëriñ Momar Talla Fall. mu joxe téeméer soldat ak juróom fukk boole ci ñaari doomam Serigne Bassirou Fall ak Serigne Ablaye Fall te muy engagement boobee deuxième guerre mondiale fii la ko defoon nag ci a Munawara bi nga xamante ni sëriñ bi ñëw na njaareem 1912 dafa ànd ak njabootam gu baax ga ko maam si Ibrahima Fall joxoon ci Thiène Jolof nga xam te ni soxna Mor Fall sëñ Momar Talla Fall nee na ma soxna Faat Fall Cheikh nee na ko te ca la bokkan juróomi doom yii muy taawi maam si Ibrahima Fall. la maam Cheikh Ibrahima Fall joxoon Serigne Touba ci Thiène Djolof 1907 Serigne Fallou Fall sëriñ Moustapha Fall sëriñ Bachirou Fall Serigne Momar Talla Fall Serigne Assane Khary Diop mi nga xamante ni moog sëñ Bachirou Fall moog moog moog sëñ Mbacke Fall wajur sëñ Bachirou alxuraan ñoo bokk ndey ak mooy mooy taawu bam Khary Diop juróomi doom yooyu la ko barke joxan Ah, ku baax ka ca ci yéen jolof ñoo ko sancal boole ca ñaari doomam ju jigéen doomam ju jigéen ko jarbaatam mooy soxna Fat Fall Cheikh ak bàjjen bu sa Njaay ab jarbaatam ñoo yoroon liggéey ba ba ku ci yéen jolof fii njaareem 1912 njabootu maam si ñoom la àndal bi ko gouverneur bi waxee commandant cercle bi ne ko na ko bàyyeeg ñiin fukki nit ñoo xamante ni lim bi du ëpp loola ci fële ca kër commandant bi njabootu maam si Ibrahima Fall gii ñoo jiitu woon ci lim boo bii muy ñii ma la wax léegi. saa dogal ba ñu nekkee foofu ànd ak Serigne Touba di yor ay yitteem lépp lu mu war a def mu deen ko defloo ci kër commandant bi 1912 11 12 13. ñaari at la fa def ku baax ki sëñ ci kër gu mag gii këram gii ci kër gu mag mu sëñ ko 1913 ba mu ko sëñ ci 1913 sang bu tedd ba Seydi Sadat si sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moo fa njëkk a feeñ ci foofu ci 1913. Ah, gàmm gi itam ginnaaw moom tax a jóg Samba Sira Fall fii la mujj a gàmmoo da daan gàmmu ndar ba mu jógee ndar. gàmmu Louga gàmmu Ngewul gàmmu Kébémer te gàmmu Ndànd gàmmu Kees diir bi mu def Kees nag moom saa maam si Ibrahima Fall nga xam te ni Kees nekk na fa mën naa ni 1904 ba 1916 mu doog jóge Kees diir boobee ni mu daan gàmmoo su gàmm mu saa jot. day woo daara yi baay faal yi ak ndog murit yi ñu ñëw ñu toog ma woo daara yi xaadiri yi ñu ñëw toog ma woo daara tiijaan yi ñu ñëw toog saa maam si Ibrahima Fall li ko ñoral mooy lislaam innamal muminuun ixwatun fa aslihu bayna axwikum dinaa ci cité kenn ndax booba sëñ maam bu kunta njaasaan moom maam si Ibrahima Fall nii la ñu defan nii looloo waral maam bu kunta jëlal doomam ju jigéen ji soxna ami kunta jox ko sëñ Modou Moustapha Fall mu mu mu maam si Ibrahima Fall mu a ngi fi. mu mu kooku kooka Cheikh la na mu si Amadou Baram jigéen di mu xaddamu Tiijaan kon lii si Sidi Muxtaar woote yal na ko yal na ko yàlla seel te dimbali te dimbali nu ci maam si Fall noonu la doon woote Sëriñ Tuubaa moom. boobu léegi nag si Amadou Baram jigéen di wóol réew maam si Ibrahima Fall ca kees. di mu xaddamu tijaan su gàmmu jotee bu ñu ñëwee toog bàyyi faal yi nag lay woo ñoom ñu daal di daare tijaan yi ak daare xaadir yi ñu ñu lal ci suuf mu ni bëgg naa nangami kaamil lim bu toll ni jàng ci suuf nag foofa boo fa demee ba léegi ay kàddu des na fa ca kees fee suñ siix fal jëmb di gàmmoo yàlla na fa yàgg a gàmmoo ànd ko wér nu bokk kàddu ya ak guy ya bàyyi faal yi kenn ku ne yor jukkib alxuraan ni ma yore sama nuuru daaree ni bii ku ne yor jukkib alxuraan yéeg ci carub kadd nga xam ne care kadd yi bàyyi faal yi dañ koy fees del cari guy yi bàyyi faal yi dañ koy fees del lim bu toll bi ñu jàng ci suuf lim boobu ñu di ko jàng ci kaw loolu noonu lañ daan gàmmoo moo tax ñu daan wax kaamilub kaw bi ak kaamilub suuf bi bi si rab faal demee ba léegi déggatuma kaamilub kaw ñi la fonkoon alxuraan ñi dal dundale bisub rasulullah alayhi salaam ba sëñ Tuubaa waxam ne ak yeytu mawlidi nabi min a wa xaadiri faw xam mun naa min jiy sëtin noonu la ko doon dundale bi ko sëñ Tuubaa tam lii ba booba léegi nag suñu jàngee ba noppi ñun ñu ni yéen kaamilu kaw bi kenn ku nekk jukki bi nga yor na nga ko jàng ñaari yoon nangami yoon yéen kaamilu suuf bi ku nekk jukki bi nga yor na nga ko jàng nangami yoon noonu la daan gàmmoo ca kees suñu jàngee ba noppi nag ñu daal di tàmb yëkkati xasida sëriñ bi diiwaani ak diiwaani xasida yi lu mel nooru daaray ni diiwaani salaawaat fulkul mas on ñu jàng diiwaan yi suñu noppee daal di yëkkati baatub laa ilaha illallah bi suñu tooy wax naan sikkurul illaahi lil xulloo bi xóotoo isin tafaaf annaha tamootoo ber ndeye dal li ko tàmbali ci gëléem ba gënaat seen faat di ko rey noonu daa daan gàmmoo kees bi mu ñëwee njaareem 1916 nag la ñu bàyyi kaamil kaw bi di jàng kaamil suuf bi ndax war may Sëriñ Tubaa ji bëggul benn Baay Faal yéeg di tiim fa Sëriñ Tubaa nekk ñu daan jàng ca kaw ak ñu daan jàng ci suuf lim boobu lépp ñu ko booy di ko jàng ci suuf borom war ma jàngoog yoon wii nag noonu la ko ko bàkk tuddee al adabul mardiya yoon wi tuddul yoonu murit am murit rawatina ab Baay Faal daa war a sell ab baay faal daa war a yiw ab baay faal daa war a gore ab baay faal daa war a nungu ndigal ab baay faal daa war a sàkku xam-xam ab baay faal li ko war li jikko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lu ci ab baay faal ñàkk rek nga xam ne moom moom la gën a war nag ndax yoon wi noonu yoonu murid waaye Sëñ Tuubaa tuddewu ko ko Sëñ Tuubaa moom dane ni ma tudd sama yoon wi ñu ko lan mu ni sa maytuhoo tarbiyatan wa tarxiya li kulli man ta'allaq bi tasfiya tudde naa ko yoonu yar ak teggin ak képp koo xam ne aju nga ci man tey sellal kon loolu ab Baay Fall li gën a war moom mi nga xam ne maamam Cheikh Ibrahima Fall moo tobbi yoon wi kon nañ ko bàyyi xel yar ak teggin ak sell war wa rahmatan min allahi badi xayri min dunya wa ma fiha jami wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh